ذريا يومان رمزات عن ملاغا محمد سلاوة تلاهي في عبد عليه في اسمه كل به كلام نجيتا من برا نجيتا جلا ومن وكرمني تغريم عادل وكن لي لقى البريه رحمن وعف لجميع الخلق رحمه من يغني أهلي سليما قرآنه قرآن ارحم جميع الارى يا ديا ردام ما أموت ما خناها والقلب من درر بجاه qalbu min baran hijaani aadan liman lillahi qad najam tubaa li abdul muri لزادهم لهم بخدمة أو بالعو هديا سرم جام بخدمة العوبي بالعو هديات ربال عبد الموري لصادق لهم بخدمة العوبي بالعو هديات Cheikh Ndiaye bu maam Ndongo ak maam Say Cheikh Mourtala moomu la tudde doom ji Cheikh Ndiaye incha allahu taala moom lañ ko duppee Cheikh Mourtala ah Mourtala Ndiaye ko duppee di doomu maam Say ko duppee Cheikh Cheikh Mourtada Cheikh Mouhamadoul Mourtada Cheikh Mouhamadoul Mourtada bismillahi maa ngi door ñu rab yàlla mi di buur di sant suñu sëriñ Góor Jaara yow ci xarnu bi Cheikh Mourtada du yaanu yaam dara sa baay ba ñëpp yaam ci saa yi nan ba baatinan jaara yow ci xarnu bi Sëriñ Mamadu Mbàkke lu yaanu yéem ñu rog sa baay ba ñëpp yéem ci sa yaram amaan dina ci jaaram ci xam bi Sëriñ Mamadu Mbàkke lu yaanu yéem xali saada li bi dinaay xini dida sini dida sidina sida bila naay safiti fay bilay jafaay tey basay tey xadaay yasal wujudi kulli bi juudi wajal wujudi fawqa daay جاز الوجود كل وجود وجه الوجود فوق الأداء أبل وداد كل المراد يا من بلا كراي أبل برورا قل القرورا أبدا سرور لكل راي واذكر كلامي ومن كلامي بلا منام ولا ابتراي سد لساني نور الجنان سافي العمان وسد براي سانتا تديرا لختميرا فلتكفجر لمن يراي أنت الديان من الدلال وبالحلال قل سراي حني تابا قل الكتاب وقل مرتبة ستراي يا خير ربي خير مربي تيب تخل بلدجاي سني وسلم على المتمم وكل ياسم بلا جاي بسم الله ما دور بسم الله di tàggu yàlla mi di buur di sant sunu sëriñ Mor Jaara may ci xar dokkale dokkale Cheikh Mamadou Murtada Cheikh Mamadou Murtada Cheikh Mamadou Murtada di yaanu yem ne sa baay ci sa iran lewan nga lool te lewan nga lool te man di mën day gëni gaay defal nu ne sa waay jaara ci xarnu bi xali saada bi dinaay خيري ديدا سيني ديدا سيدي نتيدا بلا ناي سافيتي فاي بلا جفاي تيب أساي تيب خداي ياسر وجودي كل بجودي واجعل وجودي فوق الداي ياسر وجودي كل بجودي واجعل وجودي فوق الداي أبلي وداد كل المراد يا من فاد بلا كراي أبلي برورا قيل قرورا أبدا سرور لكل راي واذكر غلامي ومن كلامي بلا منام ولا امتناعي سد لساني نذر جناني سافي العماني وسد براي صاصة ديران لقلت ميرا كنت فجر لمن يراي أنت الديان من الدلال وبالحلال قل سراي حني تابا قل الكتاب وقل مرتبة ستراي يا خير ربي خير مربي تفتخ البلد جاي sali wa salim aral ni wa kul ya simbilay taay maa ngi door bismillahi maa ngi door bismillahi maa ngi door di yàlla mi di buur di sant sunu sëriñ boor jaara may ci xar dokkale dokkale Cheikh Mamadou Murtada Cheikh Mamadou Murtada Cheikh Mamadou Murtada di yaanu yem ne sa baay ba ci sa iran wa baatinan jaara may ci xamu bi lewan nga lool te man di man day gaay defal lu ne sa waay jaaraama yu ci xam lu gi jëriñoo ngir dërëm ta bila iyaaka am xorom jaaraama yu ci xam lu gi sëriñ Mamadu Mbàkke jëriñoo ngir dërëm ta xam lu bila iyaaka am xorom jaaraama yu ci xam lu bi noo ngi lay dagaan te di la xaaraan di sunu soxol amul ka ñaan ko gi defal ko yërmande sëriñ bi noo ngi lay dagaan te di la baara di la ñaan yow mi saxol amul ka ñaan ko gis defal ko yërmande sëriñ bi noo ngi lay dagaan te di la baara di la ñaan yow mi saxol amul ka ñaan ko gis defal ko yërmande te di la ñaan baam di la jooy sultaan fasatilloo waaw nu ne waaw ngir am sa yërmande Serigne Touba moo si waan xewal yi day doon li waan ku weddi lii woo mama waan Serigne Touba yi Cheikh Saliou Serigne Touba si waan way bëgg jëm xare badar ngir jëm bi seexi saaliw boo taxaw doom di ko góob murid bu nekk gàddu njur benn ku jëm xare badar ngir jëm bi seexi saaliw